suñu jëlee par exemple. non non non honnêtement exemple suñu jëlee gasoil. gasoil Sénégal mënul gën a mari mari. ah waaw dégg nga may déglu dégg nga may déglu. léegi je donne la parole à. non dégg non damay leeral de. man li nga wax laa répété. li ma wax je le réitère. waaw d'accord ma ne la loolu nga yéene Sénégal yi boo ko réitéré ma confirmé waat li ma wax ne la yow toroxte Sénégalais yi nga yéene. prix yi fu ñu tolloon kenn mënu doon Moussa Kawale ba ko. waaw waaw. loolu j'en suis sûr et certain ñu propos ñu proposé dinañ ko wàññi. furaas dara amul. dara wàññiwul dafa gën a yokku sax. déedéet déedéet. man gis waaw non da ngaa yéene Sénégalais yi trop moo tax doo ko gis. yi yëf yi yëf yi yëf yi yëf yi yëf yi yëf yi détails ma nekkoon ci def nii quoi. man man man au moins je yi dof yi dof nag. ah déedéet yow mi yaa wéré di. ah yaa wéré di yow yaa wéré di.

je ne suis pas quelqu'un qui part dans le hasard. le que la wax yow hasard du ma du ah, ben, <laughs> centimètre. d'accord financement est-ce que ne euh, euh, mode de financement ndax avons c'est un euh, schéma pour justement financer ambition notamment fii ak

b 22 villages, mm-hmm. ben 22, bi 22. ben courant ben ben amul ci ndox. c'est le jamono ji lolu problème am nañ courant am nañu ndox am nañu tali amuñu souci des dëkk bi mais en 2019. tracé na axes universels. mais 5 ans après il n'a il ne euh, loolu y a un accès universel moi accès à l'eau potable accès à l'électricité accès aux services sociaux de base wax ma rek soit wax projet def le pourcentage de réussite mais accès aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui moi je connais des villages où xamante ne ñu c'est la croix et la bannière on est dans un état l'état ne peut pas tout réussir ça c'est évident mais quand même l'accès universel c'est pas atteint non xam nga dafa le projet 535 projet 535 moom mm accès à l'eau potable accès aux services de base accès à l'électricité mm. accès aux soins de base. Wow. moom mooy équité bi Oui. Wow. rek. équité sociale man de sama village yow Kumbal dans les 76 villages de la commune de Ndiaffate avant Macky nous... nous, ñun déglu ma gros village Ndiafat Koutal Ndiafat a Ndiafat Séeréer Ndiafat y Ndiafat fait Ndiafat Kelefa Escale. Mhm. il Koutal a eu village ak village moins de au maximum ah dix villages. courant il n'y a que deux villages parmi les soixante villages deux villages à mon courant deux villages à mon courant deux dans ces 76 villages de la commune de Diafan. Et demal nag dans d'autres localités. d'accord d'accord Pape Demba comme mën nga continuer. waaw loolu vous bëgg léegi xam nga euh, bu dee ci euh, li nga xamante ni moom mooy euh, mode de financement bi nga xamante ni moom wax pour am une économie compétitive. Mhm. basé ko ci lu ñu tuddee ci ñi nga xamante ñoom ñooy les Sénégalais xam nga bu dee États-Unis tamit l'économie américaine li ci ëpp entreprise américaine ñoom ñoo koy financé kon mun na nekk quel est ce sénégalais bi finance économie boobu ce sénégalais. Ah, mais ils ont promis de renforcer le secteur privé. léegi nag loolu la loolu lay wax. non mais les États-Unis s'endettent à l'extérieur beaucoup également surtout avec la Chine. waaw mais waaw américain yi dañuy ànd teew surtout avec la Chine. waaw kañ waaw c'est pas c'est pas léegi ñoom ñoom ñooy. même le Sénégal n'exclut pas l'endettement. non non mais. PSE e, mais vision 2050. waaw presque dañ bannir l'endettement extérieur. loolu mooy suñ demee ba càng li ñu wax. il n'ont non dama ne il n'ont dem FMI loolu moom yéen a ko defoon yéen ko diggee. ñoom dañ ko rek yeggali

danañ danañ wuti xaalis. mais fii lañ gën a vocaliser su pour am xaalis lañ wax. loolu lañ wax loolu lañ wax wuti xaalis bi d'abord fixé wuñ ko amul sax marge amul ne lii la ñuy wuti. ah kay. ñaata liir ko. ah ñaata lañ wax la ñuy wuti. liir ko ah, ah, mun ma la ko wax nii. Ah, man naa la ko jox nag bu la neexee nga liir ko. ñoom ñooy financer ressource interne. non non lenn lu ci nekk dañu ne lañ koy wute ji.

non mais ah, yow les vision la vision un an deux ans di def politique sectorielle ku tourisme appropriation loolu non le document stratégique de réduction de la pauvreté ah non waaw ñu doxal ak mhm. un deux trois Ousmane dit clairement que c'est la fin de l'ère de l'endettement économique donc bi ah.